bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa guddik tey gi mooy guddik fukkeel ak ñaar ci koor gi naafila gi tey di fukki rakka kon juróom benn kon juróomi sëlmal la rakka bu ne nga jàng faatixa benn yoon xul wallahu adun juróom benn yoon fukki rakka la raaka bu ne fatiha benn yoon xul huwallahu ahadun juróom benn yoon wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu